أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان لا بد أن نعلم أن أن الانتماء في للإسلام ليس انتماء بالورث ولا الانتماء بالهوية كما ليس انتماء بالمظهر الخارجي إنما هو انتماء للإسلام والالتزام بالإسلام في كل جوانب الحياة إن أول شرط من شروط الانتماء إلى الإسلام والانتصاب لهذا الدين أن تكون عقيدة المسلم سليمة صحيحة متوافقة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمن بما آمن به المسلمون الأوائل سلفنا الصالح وأئمة الدين المشهود لهم بالخير والبر والتقوى والفهم السليم لدين الله عز وجل mbokk julit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi fàttali sunu bopp di fàttali mbokk julit yi ne lan mooy tekki bokk gi nga bokk ci lislaam kenn ku nekk ci ñun bokk bi mu bokk ci lislaam lan lay tekki nekk gi nga nekk jullit lan lay tekki ndax kenn ku nekk xam nga bi nga nekkee jullit ndax xam nga fi nga bokk lu tax ñu laaj laaj bi mooy ñu bari ci ñun dañoo jàpp ne bokk ci lislaam mooy ma juddoo ci sama papa jullit la sama yaay jullit la man jullit laa ci ndono tey dem nañ ba nattukaayu ki bokk ci diine ci ndono lañ koy xoolee papa ak yaay ci islaam lañ laa leen fekk ci lañ ma jur kon man jullit laa ñeneen ñi yow lan moo tax nga bokk ci lislaam nga dégg mu ne def ma neex man julli ñi dañ ma neex rek kaaba gi def maa neex wala yonent bi def maa neex rek ma nekk jullit ñeneen ñi yow lu tax nga nekk lislaam col gee ma neex non seen sikkim yi dafa rafet surtout bu ñu kaalawoo non surtout bu ñu solee yére bu weex surtout bu ñu tegee kol bu xonq boobu ba teg gitra bu noir bi loolu moo tax ma nekk jullit yi yépp nag ñu lim benn du ci nattukaayu lislaam benn nga def ko du tax nga bokk ci lislaam bokk ci lislaam doomu ndey wi innama huwa al intimaau lil islaam waltizaami bil islaam wa takayuf bil islaam fi jamii al jawaanib al xayaat ki bëgg a bokk ci lislaam ginnaaw ba mu ci duggee dafay engagé wu engagement bu mër sëkk pour dund diine ji dundal ko nekkul rek da ngay dugg ne man maa ngi ci lislaam waaye da nga koy dund soo ko dundee ba mu jaxasoog sa deret ak sa yàpp nga dundal ko mooy nga jox ko ñeneen nga jéem a mel ni lislaam bëgg ci mbooleem wàll yi fii ja fii jamii jawaanibil xayaa ci mbooleem sa dund qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin sa lépp looy def danga naan yàlla ak yonent bi nan la ñu won la ko nga daal di koy defee noonu su boobaa nga xam ne yow yaa ngi ci lislaam waaye wal iltizam bil islam da ngay engagé wu engagement ferme bu ma sëkk nga wone melokaan yeeg jikko yi ci mboolem dund gi waaye mbokk yi loolu dafa am sart pour nga bokk ci lislaam nekkul ne rek da ngay ñëw julli si juma wala da ngay julli wala wooroon nga weeru koor gi passé rek bokk nga ci lislaam inna awala sart من شروط الانتماء إلى الإسلام والانتصاب لهذا الدين أن تكون عقيدة المسلم سليمة ce premier melokaan première charte buy wane ne yow jullit nga yaa ngi bokk ci jullit yi yaa ngi tuddoowoo lislaam yaa ngi dundoo lislaam mooy nga fexe sa pas pas bi mu wér li ngay fas moo tax réew mi duñu jóg ci jafe-jafe mani téere yu ndaw yi nga xam ne moom la ñuy njëkk a jàng fiq ci réew mi ku wàcc alxuraan ba pare bu dee ca daara ja dañ lay wax ne da ngay jàng laxdar yi mooy njëkk boo paree ñu ne la jëlal asmaawi boo paree ñu ne la jëlal risaala boo paree ñu ne la jëlal muqaddima boo paree ñu ne la jëlal cheikh xalil waaye xoolal première téere bi bunt bu njëkk bu la jàngal mooy awalu ma yajibu alal mukallaf mu ne tasxiihu imaanihi première mbir bi njëkk a war ki bëgg a bokk ci lislaam mooy aqida bi tey lan moo tax dëkk bi mel nii ngeen gis ay jullit yu kenn xamul dégg naa semaine bi passé ay jigéen yu demoon jaale ji ci benn dëj ay jigéen yoo xam ne toll nañ ci juróom fukki at ñeent fukki at ak nangam juróom benn fukki at ñu jàpp leen ca dëj ba ñuy tox yàmba barki démb dégg naa benn jigéen boo xam ne nee na dafa tabax jàkk jëkkër ji fase ko lan moo waral pas-pas yu bon yi ci biir société bi bis bu nekk boo xëyee nga dégg loo xam ne day toj sa nopp mooy pas-pas yi ñoo baaxul li ñu fas ci sunu xol yi imaan li ñu jot a dugal loolu baaxul ku sa pas-pas baaxul nag munagoo bokk ci lislaam sa intima ci islaam dafay fecceeku dafay yàq ba keroog pas-pas bi di baax jàngeen quran ay arab ñëw nañ ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun dañoo gëm yàlla qaalatil arabu amanna lan la yàlla wax qul lam tu'minu du dëgg da ngeen naan bokk ngeen waaye iman dugagul ci seen xol yi ixwatal iman li njëkk ci charte yooyu pour sa intima sa bokk ci lislaam wér mooy sa aqida nekk salima sahiha pas-pas bi day wér set pas-pas bi day wér set ku pas-pasam wérul setul ku pas-pasam setul du mën a wér day wér set su ko defee mu dëppoog nga gëm comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ci alquran ak sunna mu dëppoo laa wax mu dëppoo xoolal ba tey ci téere boobu muy wax Laxdari lan la wax mooy ginnaaw sa ngëm say farata mu ne nga topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo ko fi fekkule nga topp ku topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon pas-pas bi foog mu wér dëppoog la yonent bi indi ci alquran ak sunna mu ne yuminu bima amana bihi almuslimuna al awail salafuna alsalih a'immatu ddin المشهود لهم بالخير والبر والتقوى والفهم السليم لدين الله عز وجل بس بس بي غيناو بامو ويري غيناو بامو سيتي مو دبوك لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام اندي تي القران اك سنه mu ne na gëm la julit ya gëmoon amana الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله gëmal li yonent bi indi ak ña àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu njëkk ña sahabatul kiram ak aimma yi abu hurayra sahaba yi nga teg ci imaam yi shafi ahmad abu hanifa imaam yooyu la ñu gëmoon te mooy la sahaba yi gëmoon te mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi woon te loolu mooy li allahu subhanahu wa taala wàcce bu dee ci mbaax jéemal baax comme ñooñu ni ñu baaxe woon bu dee ci ragal yàlla jéemal gëm la ñooñu indi woon bu dee ci dégg-dégg jéemal dégg na ñooñu dégge woon ndax loolu moom mooy pas-pas bu wér hatta akuna musliman haqqan yujibu alayya maa yali pour ma nekk jullit jullit bu wér bu dëgg il faut ma gëm lii di ñëw أكون مؤمنا بأن الخالق الكون إله حكيم قدير عليم قيوم بدليل أن هذا الكون من من الإحسان والاتقان والتناسق والافتقار loolu yépp da ngay gëm ne ci allahu subhanahu wa taala la bàyyee pour nga nekk jullit jullit bu wér dëgg-dëgg da ngay gëm ne allahu subhanahu wa taala xaaliqal kawnu moo bind adduna bi amul kenn ku bind àdduna ku dul yàlla sunu borom subhanahu wa taala mooy créateur bu mag bi moo bind asamaan moo bind suuf moo bind bépp mbindeef moo tax mu nekk rabbul alamin hakimun qadir moom yàlla moomu ku xereñ la ba lu mu def noonu la loolu moo tax muy laaj nit ñi ci quran xool leen asamaan na sa bët dem dellu siwaat nga xool ndax diñ fi gis benn gàkk-gàkk benn manqué-manqué benn pakk-pakk mu ne yarjiu ilayka al basaru xaasi'an wa huwa xasir say bët dana dellu siwaat ci yow torox waaye doo gis ci mbindeefu yàlla yi looy critiqué waaye sax loolu dafa sori yàlla mu ne wa fii anfusikum afala tubsiruun yéen ñi seen bopp xool leen seen bopp kenn ku nekk ci ñëw bu jumaa jeexee dama nga taxaw ci sa armoire ci sa seetu nga xool sa bopp ci kaw ba ci suuf lan ngay critiqué loo xam ne fi mu nekk waru fa nekk kenn ku nekk ci ñun boo demee bala ngay añ taxawal ci sa armoire xoolal sa seetu nga xool ci sa bopp ba ci sa tànk cër yi nga am benn bu nekk fu mu nekk ndax foofu la war a nekk wala waru fa nekk wa fi anfusikum afala tubsirun ci seen bopp sax jarul ngeen di xool asamaan jarul ngeen di xool suuf jarul ngeen di dem géej loolu dafa sori yàlla mu ne xool leen seen bopp bu ngeen xoolee seen bopp ngeen xam ne man yàlla subhanahu wa taala man maay yàlla ixwatal iman ñaareel yi ci loolu ci chart yi mooy at tafkir fi xalqillah ngay xalaat ci li yàlla bind wa laysa fi zaatihi bul xalaat ci yàlla xalaatal ci li yàlla bind yàlla xel munu koo daj boo toogee bëgg a xalaat yàlla da ngay réer da ngay sànku da ngay alku bal tafakkaru fi xalqillah nañu xalaat ci yàlla bind borom bi subhanahu wa taala wax na loolu pour ñu xalaat inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wa nahaar la ayatin li ulil albab bind bi yàlla bind asamaan bind bi yàlla bind suuf jant ak weer ak leneen yàlla mu ne loolu ku ko xool rek dana nekk kéemtaan bu rëy pour ñeel borom xel yi pour ñu xam ne man yàlla subhanahu wa taala may yàlla yonente alayhi salaatu wasalaam nee na tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fillah fa tahliku xalaat leen ci mbindeefu yàlla yi waaye bu leen xalaat ci yàlla su ngeen xalaatee ci yàlla da ngeen di alku ñetteel ci tomb yooyu hatta akuna musliman an axshaahu wala axsha gayrahu yàlla rek laay ragal duma ragal kudul yàlla jullit yàlla rek lay ragal wa iyaaya faabuduni wa iyaaya man kese la yàlla di wax man kese na ngeen ma ragal wa fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin bu leen leen ragal na ngeen ma ragal man yàlla bu fekkee ay jullit ngeen gis nga saxaaba yi keroog ba ñu ragalee yàlla amatul kenn ku rëy ci ñoom parce que lu tax dañoo jële seen source seen naan ci alquranul karim lu nit màgg màgg màgg lu nit rëy lu nit am maqaama lu nit am martaba ku ragal yàlla bu taxawee ci sa wet da ngay da ngay seey ñu ngi nettali ci Égypte borom xam-xam bu mag bu ñu invité woon benn mbir buñ doon ubbi bi buur bi di ñëw borom xam-xam bi di ko xool di ko xool ba buur bi egsi ci moom war ko romb mu daal di koy yuuxu mu taxaw mu ne ko ragalal yàlla ragalal yàlla ittaqillah mu ne ko lan laa def mu ne ko palaasu sàngam dañ fay naan sàngara te yow yaay président bi te ñu ngi naan palaasu sàngam sàngara mu ne ko loolu fii laa ko fekk ci sama no bàyyi sama jamono bàyyi la woon boobu ba léegi nit ñaa ngi naan mu ne ko da ngaa bëgg a bokk ci ñiy wax ne inna wajanna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadi da ngaa bëgg a bokk ci ñi naan man sama ndey ak sama bàyyi lii lañ doon def rek loolu laay def buur bi daal di joxe ndigal nañ tëj place boobu kenn naanatul sàngara nit ñi daal di ñibbi benn taalibe ñëw ci sëriñ bi ne ko waaw sëriñ li nga def tey lu doy waar la lu tiitlu la bi nga yuuxoo buur bi ñun ñi àndoon ak yow ñun ñëpp dañoo tiit jàpp na ñun ñëpp dañ ñuy rey tey lu tax nga def loolu mu ne ko maa ngi giñ ci màggaayu yàlla buur bi bi muy ñëw ma koy xool ak garde corps yeeg màggaay yi wallahi bi ma xoolee màggaayu yàlla daa mel ni muus laa gis kon kenn du màgg ci kanam ku gëm yàlla abadan lu waay màgg-màgg rek soo xoolee màggaayu yàlla xam ne kii du dara kon bu ragal kudul yàlla sooy ragal ragalal yàlla wa an takuna xasiyati lahu daafiatun lil abd ala masakhitihi wa maharimihi inna alladhina yakhshawna rabbahum bilghaybi lahum maghfiratun wa ajrun kabir mbokk yi ragal gi ngay ragal yàlla yow lan la lay jural mooy da ngay ragal yàlla mu jural la mu lay puuse ngay sori lépp lu koy merloo moom yàlla ku ragal yàlla du dem ci luy merloo yàlla ku ragal yàlla doo ko gis ci ay bakkaar ku ragal yàlla doo ko gis foo xam ne mooy yàlla moo fa nekk ku ragal yàlla doo ko gis ci caaxaanukaay ku ragal yàlla doo ko gis ci po ku ragal yàlla doo ko fekk muy tooñ bu nit ñi ragaloon yàlla jàmm am su nit ñëpp ragaloon yàlla jàmm am su nit ñëpp ragaloon yàlla problème yi ci àdduna bi yëpp day réglé wu sunu borom subhaanahu wa taala moo ko wax mooy bu nit ñi ragalee yàlla am jàmm ci kaw suuf walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw luy xew la fatahna alayhim barakatin min alsamaai wal ard borom bi subhaanahu wa taala nee na inna alladina yaxshawna rabbahum bilxaybi lahum magfiratun وأجر كبير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله الشرط الرابع حتى أكون مسلما أستغفر الله وأديم استغفاره فالاستغفار كفارة لكل خطيئة ومجدد للتوبة والإيمان با وباعث على الراحة والإطمئنان ñenteelu tomb pour nga nekk jullit foog ngay jéggulu yàlla foo nekk sa làmmiñ bi sa xol mi sa xel bi ngay jéggulu yàlla foo nekk mbokk yi istigfaar moom la yàlla mujjee dénk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog ca suratu nasr ca hajjatul wida ba yonent bi ajee ba pare saar boobu wàcc lan la ko yàlla wax ci alquran wa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiru na nga sant yàlla waaye fépp foo toll del jéggalu yàlla subhanahu wa taala istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursilu sama alaykum midrara jullit bu gëm yàlla pour nga nekk jullit foo toll sa làmmiñ bi dafa war a nekk ci astaghfirullah ngay tudd yàlla zikrullah mubah li kulli makan wa fi kulli zaman place bu nekk laajul jàpp laajul jublu penk laajul jublu so laajul taxaw laajul toog laajul tëdd foo nekk lu dul nga nekk ci duus fu nekk mën nga fa tudd yàlla sa làmmiñ bi pour nga tudd yàlla fexeel mu ciy sax guddeeg bëccëg na sax ci sa làmmiñ mu ne istigfaar mooy tax yàlla jéggal la say bakkaar moom mooy beesalaat sa tuub moom mooy dekkalaat li deewoon ci sa pas-pas waaye mooy tax nga am jàmm waaye moom istigfaar moo tax nga am dal moo tax sunu borom subhaanahu wa taala dénkuñu ko nañ ko wax suba nañ ko wax ngoon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog bi ko yàlla waxee nee na saa yu ma xëyee dinaa ko wax juróom-ñaar fukki yoon am na riwaaya bu ñëw ne téeméeri yoon su fekkee yonent bi mooy xëy di wax astaghfirullah téeméer suba téeméer ngoon kon ñun fu ñu jëm kon ñun lan lañ war a def juróomeelu sart hatta akuna musliman pour nga nekk jullit uraqibullah mooy fuglul yàlla na la yàlla di surveiller fépp foo nekk ittaqillah xaysuma kunt fépp foo nekk bul wax kenn gisuma am na ku lay gis uraqibullah taala fi sirri wa jahri mustashiran qawluhu taala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kaanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama inna allaha bi kulli shay'in alim fépp foo nekk yëgal ne yaa ngeeg yàlla yàllaa ngi lay gis gis nga jullit ñi bu ñu gëmoon ne fépp fu ñu nekk yàllaa ngi leen di gis kon ñu noppalu kon ñu noppalu benn boroom xam-xam benn waay da koo ziyaare ne ko dama bëgg nga dénk ma fu ma nekk rek bay def lu baax fekk am na benn photo bu waa ji def ci néegam mu ne ko xoolal photo bi mu ne ko kii kan la mu ne ko sama sëriñ la mu ne ko est ce que kii bëgg ngay nga ngay def lu bon mu lay xool mu ne déedéet waaw kon yàlla mi la bind nag yàlla mi borom kooku di sa borom nag ndax war na la séen nga nekk ci lu bon guddeeg bëccëg kon ixwatal iman na nga yëg ne foo nekk bu dee ñaar ngeen yàllaa leen ñetteel bu nga nekkee ñeent yàllaa leen juróomeel su nga nekkee juróom yàllaa leen juróom benn moo xam dafa néew moo xam dafa bëri fu ngeen mën a ne jullit na yëg ne fu mu mën a nekk aynama takunu fu ngeen mën a nekk borom bi subhanahu wa taala nee na xam naa lu ngeen fa nekk te ëllëg yowmal qiyaam dinaa leen wax lu ngeen fa nekke woon dinaa leen wax ñaata woon ngeen dinaa leen wax nan ngeen ko doon defee moom yàlla pour mu wax ñuy lu leer mu ne inna allaha bi kulli shay'in alim bi kulli shay amul lu mu bàyyi bi kulli shay alim lépp borom bi xam na ko lépp moom rek moo ko xam loolu mooy juróomeelu sart juróom-benneelu sart hatta akuna musliman akuna muminan bi anna al jazaa'u al mu'min al muti' huwa al janna juróom-benneelu sart mooy nga yëg ne jullit ki gëm yàlla topp yàlla ëllëg fayam mooy aljanna lan moo tax kuy liggéey di liggéey ci société bi di rey boppam guddeeg bëccëg di xëy suba di guddee wàcc di va-et-vient bu feebaree sax du ñëwee tëdd day dem lu tax parce que am na benn sagaru salaire bu mu yaakaar ci patron kooku da koy jox dañ ko embauché waaw ki am yaakaar boobu ki am kóolite googu liggéey ba retraité salaire am musta manqué taraangaam yépp mu jot ko borom bi yow wax la jaamu ma soo ma jaamoo ëllëg man ak yow bu ñu dajee fi ma lay tere mooy aljanna te gëmuloo loolu te gëm nga salaire bi mooy sunu axwaal tey ñun ñëpp ku ñu embauché ñeme woo tardé ki yàlla embauché nag bu ko neexee mu biddanti bu ko neexee yenn mu sàggane julli bi bu ko neexee mu tardel ko bu ko neexee mu def ko nu mu ko neexee moom ci boppam au lieu ni ko borom liggéey bi bëggee te xam na ne bi anna al jazaa'ul mu'min al mutiya fayu jullit bi gëm yàlla huwal janna ndax am na taraanga bu gën a rëy aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax sahaaba yi aljanna lan la wax ala inna silata allahi gaaliya marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer sahaaba yi ne ko loolu lan la mu ne mooy aljanna sunu borom sax wax ñu ci alquran ne mayewu ko yombul inna allaha ashtara la wax min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yàlla nee na aljanna dama koy jaay wa anna aljazaau alkafir alaasi huwa annar fayu ëllëg ku toppul yàlla ku jaamul yàlla ku xamul allah subhanahu wa taala bàyyi woo ay tereem defe woo ay ndigalam borom bi subhanahu wa taala nee na yow sa fay ëllëg kenn mun ta fexe ba duma la yóbbu safara kenn munu ci dara wallahi ku jaamul yàlla suba yàlla lakk la ixwatal iman fariqun fi ljanna wa fariqun fi sair foog ëllëg yowm alqiyam nit ñi nekk ñaari kuréel kuréel bi jëm aljanna kuréel bi jëm safara kenn ku nekk si ñun fi toog xoolal ci ban kuréel nga bokk ruwiya umar ibnu abdul aziz rahimahullah isa ida daxala manzilahu jaala yabki hatta sabah Omar ibnu Abdul Aziz kenn la woon ci gaa yu baax yi dañ koo yéegal sax martabaam ba boole ko ci xulafaa u rachidin te fekkewul jamono yonent gisu ko waaye baax bi mu baax liggéey bi mu liggéeyal lislaam bi mu nekkee amir tax na tey ci yenn téere boo laajee xulafaa u rachidin ñaata la ñu ne la xamsa lañ juróom waa jooju lañ fekk mu toog guddi biir këram ci biir saalam mu toog di jooy ba jabaram yi tiit toog di jooy doom yi dégg leen ñuy jooy ñu yeewu toog di jooy wa lamma sami'ahum aljiraanu jaalu yabkuna maahum ba leen dëkkandoo yi déggee ñuy jooy dëkkandoo yi yeewu toog ba jooy yi méttee koñ bi riir dëkk bi riir benn waay ne ko yarhamuka allahu ya umar ma hada albuka omar yal na la yàlla yërëm jooy yi lan moo ko waral mu ne ko tasawartu yowma alqiyama damaa toog rek guddi gi ma imaginer yowmal qiyaam mu nekk sama kanam mu ne fariqun fil janna wa fariqun fi sair mu ne benn groupe ñu ngi aljanna groupe ñu ngi safara mu ne man xamaguma fan laa bokk ak xoola ni mu baaxee fax mu ne moom xamul fu mu bokk ñun ñu julli si tey jumaa jublu penku jàkkaarloog yàlla ci ñun ñu toog fii kenn ku nekk ci sa biir xol ci sa ruu ci sa xel ndax xam nga foo bokk ku nekk laajal question bi sa bopp allahumma addimna ala nicmati islam allahumma addimna ala nicmati lislami وسخرنا لخدمة هذا الدين وسخرنا لخدمة هذا الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله